fukki fan ak def 2013 2014 wa francophonie gis limay def daal di may invité ci Massa mësul am ci histoire li ñuy def festival bu toll ni Massa moy marché des arts du spectacle africain ma dem Côte d'Ivoire ci stade fait boigny bi ma defee 2013 rek la la wax de ñu dem kérok ci kanamu président Abdou Diouf ak mboolem président yi fa nekkoon fa la fekk Youssou Ndour fa la fekk euh, Abdou Aziz Mbaye bi nekkoon ministre de la culture à l'époque ma ñëw taxaw kérok man ma ubbi cérémonie ba ñëpp def nañu balance kérok ki bind ci Sénégal nek le soleil dafa fekk li ñi wané lenen li du ko wané li dafa bind ni les ni tabala yi ñoo rythme massa bi ñu bind ci te en direct la doonoon ci yenen chaîne yu mag Africa Africable ak yenen ñu bari seetaan nañu ko loolu 2014 la 2014 boobu bi ñu ko defee tubaab dafa dañ kumpa su fekkoon génneel nañ la caméra d'ambiance yi di nga xam ni kon diine rek kay dëgg parce que ñëpp def nañu balance ba mu des ñun bi tabale yu dóoree bu ñu la wanoon ni caméraman yi sànnee seeni caméra di daw dañoo dégg lu ñu mës a dégg nga tudd fa turu yàlla estade ba yëpp àndandoo di ko wax te am na ay preuve loolu mille 2014 la am mu jaaxal leen ñoom ñu invité ma ci seen siège francophonie ma dem fekki len francophonie ñu laaj ma lan moy tabala dat ni ma ak tabala bi ngay teug lutax du rax ma dat ni len tabala moy ndëndu l'islam bañu ñu koy git ci biir boo gisee soxlawuma lenen ci biir tabala man dama gëm ni ya toute sorte de sonorité xam nga lolou lu mu jor 2014 la la wax li 2015 euh, compilation nouveau son bu francophonie man ci laa bokk vingt nominés yi ñu tànn ci àddina bi boole nañu ma ci te dañoo jël ay musiciens tabala jaaxal leen ñu ñëw dugal ko ci ci cadre musique sacrée ma tuddee ko ma voix sama yoon mu ngi ci bokk ci 20 nominés yi li ñuy wane lii moom la ñu ko dul wane kon def na ay jéego mu commencé nag ñëpp di def carrière internationale sama morom yi ñëpp ñi ngi dem France ñi ngi dem feneen ñi ngi dem feneen mais duñu wané loolu ni ñi wané li loola rek jaron nako, moy ouverture bama la doon wax léopold sédar senghor moko waxon bu ngay ouverture mais ki ubbi ay da fay fekk ay reenam dëgër reen bi dëgër moy ki nu yar ci walu éthique te ñun dan no yar ci l'islam lan nu yar kon dara du bëtt sunu l'islam ñu jël ko nak mu nekk carrière internationale lu jitu bis ba may ñaar